li moom day gàtt damay tënk rek nuyoo yëpp rek ngeen jégal ma dama koy tënk damay soññee tuuti rek di fàttali daal koy yëpp sëñ bi mu sëñ Tuubaa kum liggéeyloo da jox ay bagaasam mu mel ni sëñ Muntaxa nag moom da sëñ Tuubaa liggéeyloo te moom muy doxe ku dem ma dem ku demul mu dem loolu nag ku koy doxee boo geesoo gis mbooloo sa gannaaw bi mu geesoo nag bokk na ci mbooloo yi gis Touba Ca Kanam moo tax ñuy dox doxee nu gaynde boo gisee Touba Ca Kanam am solo dafa yëmul ci wenn waar rek dafa ne ci leele aw ñam te ku ne xam ne tiyaabu ji nekk na ci am paj te ku ne xam ne tiyaabu ji nekk na ci defar ay yoon te ku ne xam ne tiyaabu ji nekk ne ci defar ay daara kon nga xam ne tuyaaba ji nekk kon moom dafa yaatal loolu nag mooy diine moo di diine te moo di bokk kon nag ñuy soññ kuy taalibe kuy jullit ku bëgg lu baax nga jàpp leen ci def te xam ne ku ko def sànn wi dem dellu si rek la ci yow di dellu si waat li nag ba ci day li mel ni orange ak wari ak yi nuyoog ñoom ñoom amee nañ Touba ca kanam duggal tey dañoo war a jëf yéen Touba ca kanam. Mhm. ndax ñi ciy dugal seen addiya dañuy fay te ñoom ñooy bénéfice jaar gi mi jaar ci ñoom tey dañ ciy am tiyaaba dañ ciy am tiyaaba am ci yóbbu. Mhm. addiya ki ko jot li ak ki ko joxe ñooy am képp. Mhm. sëñ Saliou ma ko waxoon bi ñuy joxe 86 addiya jumaa ji. bi mu yóbbu addiyaam da koo teg sama loxo ba dama jot ci waat ma ko jël ko ma def ko joxaat ma ko. doo koo jox ki ko jot suñu baax daal di mën addiye ki koy joxe ak ki koy jot si mooy comme ñoom ñoom ñooy jot li tañ leen di fay war nañoo jëf te bañ te feeñ ci bu baax a baax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bàyyi si bi kàddu ko salaamaaleykum